par rapport ak tiitaange waa Bambey yi nga xamante ni d'habitude dañuy wax naan vraiment kudd yi fiy jaar kurus yi fiy jaar daf leen di xaw a kii est-ce que mun seen xel mun na dal ak Moustapha waaw maa ngi dalal seen xel bu baax a baax loolu moom maanaam euh, euh, dinañ gis population de Bambey dinañ gis sen bopp si kurus de Bambey man njaareem laa dëkk njaareem ak Bambey yëpp benn la mais njaareem dina si gis boppam mais surtout population de Bambey ndax université de Bambey Bambey na ne donc euh, population de Bambay, à la àll c'est un engagement fort que je prends Inch'Allah, nous nous noonu le chômage à bombay à ah n'en pas douter il en sera ainsi donc euh, ce qu'il faut comprendre par là c'est qu'il y a des euh, a des opportunités qu'offre le Cours de bombay et les populations de bombay en seront certainement à n'en pas douter les premiers bénéficiaires Merci.